Euh, ziar ziaraat ma mbokk internet leen ziar nañ leen fi ñu daan nuyoo di leen wax ne tey aussi euh, dañu déplacé woon ñëw ba fii ci euh, Rufisque ñoo ngi tëngeej nii plus précisément Diokoul Cité Gabon kër entraîneur principal écurie Lébou gi ñu gën ko xam ci Papa Yada la plupart du temps gars bu ñu déggee Papa seen thème seen tur lay dem ci Assane Diop mi daan bëri mais Papa Yada Assane Diop moom ki mu tuddee boppam Papa Nous lañ nekk nii euh, très grand champion mën mu mën def xarañ lool lool lool en l'occurrence maa ngi toog ak euh, Youssou Youssou écrou lañ parce que waa dafa def ci un an deux ans trois ans mais qu'est-ce qui se passe Nous mu demee noonu léegi li xew man ak euh, découvrir en même temps Mbër nuyu naa la. waaw Seydina ñu ngi lay fay. ci loolee. waaw sant yàlla bu wér a wér ah. naka yi tey. waaw sant yàlla rek. ginnaaw bu ñu sant yàlla. di si yalante bi. sant suñu ñaari waajur di sant fi ñu nekk nii papa yàlla. Mhm. ndax ñun suñu lépp papa yàlla la. sëñ bi yaa ko muy toog. amaa nga dix mille problème. yaa ko moom mooy papa moom mooy doomu papa yaa waaw ci doomu papa yaa xam nga mu nekk nag nit ku am pas-pas. moom xam nga nekk si équipe bi di jàppale booy ko neexoon loolu lépp du ko si fekk. actuellement mu ngi si équipe bi. mu ngi si équipe bi parce mu ngi jëm mu ngi jëm ma. mu ngi jëm ma instant bii il moo tax nag yaa ko jël bi. waaw yàlla may nga xam-xam loolu nag. actuellement moom mooy coach booy. non moom moom moom moom mu ngi si bureau bi quoi. ok mu ngi si bureau bi mu ngi si jàpp waaw. en même temps tam. ku ñëw si salle bi mën na la defar programme nga entraînement. sa musculation bi ku mel ni Ibra. Mhm. waaw di nuyu doom 10 000 problème. 10 000 problème. aha 10 000 problème bu def ñi bu écrit lébu gi 10 000 yu bëri na rek mais kan mooy original bi man loolooy sama problème mais kii de toute façon sama gars yi waa ji def na lu ne wee nga ci làmb bi benn défaite bi Quench am ci làmb Quench bu lansaan benn défaite bi mu am waa ji moom moo ko infligé kii mooy ji nga problème bu utile lébu gi mais mbër bi yaa ma tamit. waaw li nga wax moom dëgg la yow Seydina yow bu baax nga quoi ndax yow xam nga dem nga déplacement gëj a gis ay mbër nga ne noonu ñii dinaa leen seet seet xool ñi lan moo leen téye waaw nag ñun nag ñu ngi si jàmm quoi ñu ngi suñu lu xam nga yàlla defoon na nag dañoo amoon blessure xam nga ñu toog nag mais si ces derniers temps yi ku ne xam na ne làmb ji muy dox baaxul quoi moom ñu profité waale si tam toog ñu xoolaat suñu bopp. des choses à dire ah. waaw non yu bëri yu bëri. xam nga ku mel ne diimil ba mu wax moom bu ñu umpale dara. moom boobu léegi mu ngi toog ci lu xam te mu ngi dund. xam nga parce que làmb yi il faut ñu defaraat ñu ngi félicité nu ma CNG bi. nouveau président bi. président muy Bira Sène xam nga fi nga wax ne làmb actuellement li ñu ci war a rectifier dafa bëri. dafa bëri trop. ci moom la ñu yaakaar boo gisee mbir yu bëri ñu ngi jël ay gaal di mais lan moo waral loolu yow gis nga ko man gis naa ko ay champion yu bari dem nañ mbëkki mën naa la séddal ay mbër yu nekk mbër yu mbëkki ku mel ni ay booy Modou Baye Fall mais lan moo waral loolu parce que lamb ju ñàkk dox moo ko waral si taatu tamit yàlla daf lay yi mhm. tey doo dégg mukk Modou mu ngi agressé mhm. wala mu bu fi gaal gi tax ñu ne la bàyyi ma dem aventure quoi dem xooli leneen euh, Youssou Ndour da non ñun dawuñu làmb ji. non bu nit ñi yow laay waxal yow da ngaa daw làmb ji. man daw ma làmb ji. waaw mais chaque chaque année dama naa gis ngay compétir. waaw ku gis naa la nga compétir quatre fois si bi nga duggee nga bëri année bi wala quatre. quatre fois dama jógee arena tour am trois ah. na éliminatoire am fa deux victoires. tour préliminaire. waaw tour daan bëriwaat daan. door a dugg si arena tour nga dugg ci poule bi. waaw bëri saison boobu cinq combats nga

man kenn rek laay xoolee sama bopp. muy Lac Rose mbër. man moo tax may xoolee sama bopp Lac Rose. Lac Rose dafa amee blessure nekk si xam-xam dégg naa kii du du lii du lii dañ lay jël fàtte la quoi maanaam nit ñi ñoo gaaw a fàtte. mais man man ku fàtte ma fàtte lépp sant yàlla. man de ku fàtte ma fàtte li la te ku xamul woon Youssou Ndour ma xamal na ki mooy Youssou Ndour. waaw Youssou Ndour loolu moo tax ma déplacé. Youssou Ndour mu ngi nii bàyyiwuñu làmb man moom bàyyiwuma làmb bàyyi ma laa ma xëy dama amoon blessure médecin yi ma xamul il faut nga toog faju xam nga bu wér bu wér nga mën a delluwaat sa liggéey waaw ma dem taw taw euh, est-ce xam nga ni tamit fii am ay mbër yoo xam ne yow tax ñu takk yoon bi xamuloo non bari na am na xam ne yaa leen yaa leen doon bari na mais xam nga rek ku ne xam nga ni muy quoi am na pas quoi

mu ne ma grand bi ma ne ko naan mu ne ma Youssou Ndour bu nekk moo tax ma Youssou Ndour kooku laa daan seetaan muy bëre di daan di bëre di daan ma dem ba bëgg a bëre mu ne ma grand bi kooku mbapat taxaw na fi xaw ma ñaata at la ma xaw ma trois ans la ma xaw ma quatre ans kenn mënu koo daan kon xam nga ne dèjà gëstu naa man xam naa la dèjà mais toog naa waxtaane la feneen ak feneen ak feneen. oui ma Sambé maa ngi wax la foofu. dina Sambé bi nga gis nii. billahi ak kii Serigne Sall ku dee sa bàmmeel fii da ngay commencé ba fu mu jeexee kii moo tax a bëri. mbër moomu loolu la ma wax. billahi barke alxuraan. ah ah ah kooku de loolu la ma wax. alxuraan maa ngi tënkee nag xam naa ne bëri na ay champion. xam nga tey sa waay laa seet si mais taxaw naa mbër mu ne moom tënkee wëngal këpp Youssou Ndour moo fi daal. xam nga dama ne kii xam nga dama ne kii moo daax bëri si tënk. Ah. mais dañu nekk benn mbapat bu étudiant yi tëggoon euh, mën naa ko place. Ah. su ma juumul deux mille dix la xaw ma deux mille onze. ñu dem di bëri ci làmb yi. làmb yi nekk six cent et quelques mbër. Ah. ñu nekk ci làmb yi man ak moom ak baabu ko la ñu ne ci làmb yi chaque jour mooy aloha. ok chaque jour dinañ bëri chaque jour dinañ bëri lu mat 10 combats kenn ku ne dina ko bëri mais jour chaque jour amul benn jël bu mu daan bu bokkaat bu mu daan. jël bu mu daan jël bu mu daan lu mu def du ko defaat. lu mu def nit bu paree du ko defaat kenn. ñu jógee foofu ñu ànd ak ñu bëri làmb newataan ñu bëri si nekk fi mu fi ñu bëri ngay sàmm ñu dem may max moom ñu ànd préparé wu ñu bokk bool ay bokk bool ak bokk ataaya bokk oto bu ñu yóbbu bokk ay jumbukaay ñu daje ñu ñu final man ak moom. ok ngay daan muy daan. may daan final. ñu daje final man ak moom. Uh-huh. ma ne ko may mu ne ma may ASC laa ya ba ba xeex. <laughs> sama boy. non xeex bëre uh-huh. bis lamba jarul ma nag lan nga seet. bu doon dëgg dafa mën a bëri. Uh-huh. du ma loo xam ne saa bu ma ko defee ñëpp amul benn mbër bu ma mës a bëri te def ma wala def. dama ko teg mën na ko baaxul doo ko def ma si daal du ma ko sax jege fi laa ko teg mu jaar fii mu daal ji ma forcé ko mu daan jëli bu jëli boo xam ne kenn bu wéy la ma daan man nga xool ba ma seetlu ay làmba buy bëri maanaam jour li muy def ak mbëri kattan bu doy waar lay kattan man kii xam nga laa ngi xoolee Balla Gaye bi ñaar ñoo dàq bëri bi ñu wootee Balla Gaye ku bëgg ak ku bañ ñaar ñoo dàq bëri Sénégal man ak Serigne Sall Mbacké deful Balla deful ma dara musu non mais li nga gëm ngay wax musu ñu toog ne ma xam wax non li nga gëm ngay wax mais la ma gis mooy ko def laa gisul si benn mbër man man nga maa dàq jox man nga maa ko doole waaye ëpp fit moo ëpp ci Sénégal ndax mooy dafa défier kii loolu laa gis si moom mooy day day bëri di ak États-Unis gars yi du baax man diggante ba états diggante ba états-unis ba woon su ma jur. man ak moom ñoo préparé états-unis loo ko laaj. am na lañ préparé làmb ji. Uh-huh. dama koy ndóobi làmb ji mën a amal daa jax mën ko am préparé. ba pare nañ nga xañ làmb ji mu ne woon man nañ nga xañ làmb ji mu ñëwee bi ba pare na préparé ñu dajaloo génn mu yóbbu ko génn taxaw suñu ndox mi ñu taxaw ba ñu xam ne ñu dawee dem ñu dawee deux cent mille ñu def dépense def ay ñu génn song ci ndox mi ci ndox mi buñ song ci ndox xam nga da ngay jooy képp nga la jàmm day dem ba ba day dem ba wàccu bëri ba wàccu man ak états unis benn jàpp nga ñu jàpp boo ko bàyyi daal daa am te noonu la états unis da koy jàpp topp ko du mu jeex te loolu yombul sàmm la ndax mën na nga sàmm mooy dafa nangu nangu quoi parce que sëñ bi parce que fii dañu leen sàmm ay commissaire libaas maa ngi leen di grand yooyu commissaire libaas maam si doo amaleex di ñu tarbiya di ñu teg si yoon naa ñu ñu ñu ngeen war a dem dañuy ñëw contact grand yi contact yi boo nee dana gën ñëw dana ñëw contact bi si ñu tax ñu siwoon siwoon dañu mutu ndox balaa ñuy ñëw contact yi bare bu tere ñun lay fa di ko muñ. Ah, xam nga joxe cër boobu nangu boobu ah, ah. ñun ñun dañ daan ànd ak grand yi fii dem sa dem yeer Mbapat grand yi ñu dugg sa biir ñu dugg sa dañuy dox. grand yi bu ñu bëri deux heures de matin trois heures ñoom ñu dugg sa biir ñu bàyyi ñu dox sa àll su subaa dañuy demaat tubaab dara. ginnaaw subaa yi ñoom sama. parce que amul lañ am ñun làmb nekk fi ñëw pour ut xaalis. mais amul la woon. jamono dañ leen nekk ay booy ñu teg ay tefes bu ñu demee nii ba teel. grand yi day booy kaay mais benn bi daal yéen ñu bëri ay huit xale yu ndaw. nekk ak ay huit ans. dix ma yàqal. yow yow rek rek. waaye tey rek ma rek. non sax bi nga waxtaan non dama xam xam nga la moo tax sama waxtaan ak yéen da ngeen di dund làmb may dund làmb. waaw ma yàgg leen suivre. dara eh, ba gis xam nga. Eh, mbër eh, sa waay seede na ah? am na beneen mbër bu seede ak keneen ak keneen ak keneen mais benn instant dama naan Youssou Ndour lan moo la boole ak làmb waaw li ñu boole mooy comme li jibil waa rek dañoo ñëw fii fekk suñuy grand di bëri ñëwoon fi fekk suñu grand ama neex pitos moom soko si pitos voilà pitos moo fi nekkoon ak ay doomu jaraaw jaraaw ñoo fi doomu jaraaw dañu leen bokk doomu jaraaw moo jiwul ma doon bëri ma bokk moom da ngay da ma doon bëri ma bokk moo jiwul waaw dinañ comme ni dix mille wax rek dix mille nii ba doon bokkoon mais loolu yàqu suñu diggante dara fii te nga bu jëkkoon lu bëri yëpp dañ doon bëri si waaw mais la woon kii day ba ba ba ba ba maanaam loolu nekkuloon problème su dee entraînement yi am mboqal yëpp lañ doon boole ñi xam nga foo bëree rek pour daan rek moo xam ne sa morom moo daan mais teewul ko waaw bëre moom ni mu la ko mën a waxee maanaam doonu ma ko si kenn quoi. doonu ma ko waaw. dina dina bëgg bëri waaw yaa de moo la jàngal bëre nag. moo la jàngal bëre ñun ñëpp moo la jàngal bëre. yàlla dafa fekkoon nag ñun xëy na ak ñoo booy yi. ñun booy yi sens bi ñu sens bi ñu amoon ñoom amuñu ko xam nga moo tax amuñu ko ñun dañu ñëw fekk paa bi instant boobu mu ngi toll suuf maanaam doo la jógee équipe nationale di ñëw. waaw doo doon sol blouson ñëw. te fépp fu mu la téye. doo ko mën a dindi. di leen wax nii la nii la mooy loolu mais daloon ak daloon sol blouson wax yàlla daloon sol blouson ñëw ba ay ponkal fii fii xoola di leen daal te boo paa bi am na wala ay yooyu yàlla mi kii man maa nga fekke man su am combat bu nii la nii la prise bu mu gën a kii tant que wàccoo dana naan lii baaxul mais xam nga làmb nag sens na si am parfois am na ci ça damay am bonne fois. te des fois nga gis mbër bu mën li muy jëf mais ay tolof tolof. loolu day am. nga ne sa premier combat nga bëri. sama nga laa bëri loolu. Modou nga euh, Modou ñi nga ah. di buur jëwal. buur jëwal. waaw mu mhm. yu bëri de. soo Pambal kañ la woon. mooy Pambal Moussa Gueye moom dëggoon nga jàpp da ko def. non mais premier combat yi sa premier combat moom nga moom nga daan. mën a non non buur ji nga daan. waaw nga jóge ci daan buur géwël. daan buur géwël. nga jóge ci daan booy Pambal. booy booy Pambal mooy sa troisième combat. non sama troisième combat limousine laa dajal. limousine ni boobu sa premier rek. waaw nga jóge ci limousine. ma jóge ci limousine dem ci booy Pambal daan ka. après nga am pakala xam nga pakala bu fële. waaw pakala ñëwagul avant boobu si laa daan Pambal. daan lay bii.